génération oto nga joxe exemple mais ñi dañuy démarrer de. non mais justement mais dañuy démarrer ah mais cin su naree neex su baxee xëy. mais non dama oto nga joxe exemple ma ne la mais dañuy démarrer. dama ne la cin su démarrage la ñu nekk démarrer oto la ñu nekk. cin su naree neex waaw su baxee xeeñ ñeenti weer dafa am solo ci dundinu doomu aadama wax naa la ko ñeenti weer dafa am solo ci dundinu doomu aadama biñ lay nattal moom président bi mu ñëwee naan wuy fekk ma xaalis ci réew mi. mais bañ kon nattalee premier trimestre lañ ko nattaloon premier trimestre bi Macky Sall moom lañ ko nattaloon ba mu ñëwee fekk fi la ñu nattaloon ci premier trimestre bi mais deuxième trimestre bi moo ko encaissé laaj ko ndax xam jot na ci fonds politique yi wala jotu ko laajal Ousmane ko ndax jot na fonds politique wala jotu ko pourtant ñoom dañu waxoon ne fonds politique baaxul bi ñu ñëwee ba fekk fi fonds politique yi te ñoom jàppoon nañ ne dafa araam lu tax delloowuñ ko tey hémodialysé yi nekk. hangar pèlerin xam nga ban heure la ñuy dem trois heures du matin pour ñu mën a am séance hémodialysée yaakaaroo ne 17 milliards yooyu ñu leen dajaleel ñoom jox leen ko ñu ciy gunnaandaat waroon na mën a régler problème mu hémodialysé yooyu réew mu nërmeelu réew mu amul xaalis est-ce que danañ jël marchand ambulant yi naan leen dem leen deer mu financé leen réew mu nërmeelu kay mënta financé ay marchand ambulant gis nga pap il faut ñu nangu waxante dëkk li ma lay wax encore une fois li ma jàpp mooy Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom bu ñu juumee il faut ñu nangu ni juum nañu. mais juum teel naa Bougane. waaw may ma rek ma ñëw. non kaay ma wax la ne kaay ma wax la ne juum nañu. du dañu waxoon ne dañuy génn franc fa Ousmane Sonko jënd na glace yàgg na dootul wax ci franc fa njabootam ñoo ko dul dimbali rek di nekk ji ci wax mais pare na ci. gage bi mu njëkk a jox waa France mooy dafa jël le premier défenseur du CFA mooy secrétaire général gouvernement bi tamu sant loo mhm. moo nekkoon directeur national BCEAO tout à fait waaw ku nekkoon directeur national BCEAO nga indi ko def ko secrétaire général du gouvernement di nga waxati waxu CFA pare na ci loo ci waxati Mali Burkina ak Niger lu dañu wax ne dañoo bañ France génn nañu CEDEAO léegi kuy dox ci CEDEAO pour jubale leen moonte ñoom dañu waxoon ne CEDEAO baaxul léegi kuy dox pour jubale waa CEDEAO yi lañ def seen booy ne ko demal dox ko waxtaanal la gars yi pour ñu dellu si pourtant CEDEAO kan moo ko contrôlé Nigéria 70 pour cent Ghana 6 pour cent ñaari réew yooyu rek 76 pour cent la ñu contrôlé ci CEDEAO les huit pays de e ma l'UEMOA kan moo leen contrôlé lu nee nañu France moo leen yore France bi leen yor. waa AES du dañ ne dañoo mere France mais kay dañu waroon commencé génn ci franc fa lu tax ci franc CFA loolu yëpp mooy li may wax gis nga nit da ngay am grandeur boo jëlee yoon bi nga xam ne yoon bi baaxul ñun ci suñu génération comme dañu ñëw ñun pour jubbanti war nañu mën a nangu ne. yoon bi ñu jël baaxul. xam nga nii mooy seen slogan ñoom. waaw moo tax ma wax loolu moo tax ma ko. jub jubal jubanti. mais te bu ñu demee ba ci kanam danaa la wax danaa la wan ne jub amu ci jubal amu ci dëngal ak wengal lañ nekk te ci ñëw. mais Bougane ñëw ci. dinaa ci ñëw. non mais ak ay. da nga may may may rek ma ñëw ci li ma la doon wax léegi gis nga boo dee soxla réew. Mhm. il faut nga nangu tenir langage de vérité waxtaan ak wax ñi ñi dëgg. du ne da ngay wax nit ñi parce que loolu la ñu bëgg a dégg da ngay wax nit ñi liy dëgg wax nit ñi liy dëgg mooy boo taxawee jàkkaarlook ay nit naan leen France day dégager Sénégal France am fi deux cent soixante dix société trente mille ou trente six mille nit di liggéey fii ci ay sociétés françaises suñu PIB ñoom ñuy am 25 pour cent. xam nga ne discours frappe la aussi waaw non mais xam nga ne discours frappe la aussi. da ma bëgg a wax ne Ousmane Sonko musul wax loolu ci France. la ko frappe doon waxee. dama ne Ousmane Sonko mais xam nga ne discours frappe la même bu ko cautionné. Hmm. dégage. Hmm. et puis euh, cest à slogan boobu ñan ñoo ko incarné woon waxal rek nit ñi di la dégg aussi. Pape bi ñuy bi ñuy song ay enseigne France yu nekk Sénégal di ko toj di ko yàq ku ko doon encouragé ñan ñoo ko doon encouragé pourtant liñ doon yàq ay sénégalais lañu ko yàqal. bi muy impacté suñu économie la impacté France moo ko moom mais sénégalais yi ci doon daan seen doole ñaata lañu. Pape gis nga. booy soxla réew dafa am looy gëm boo jëlee réew dafa am li gën diggante li nga gëm ak li gën dangay xool li gën ci réew mi nga jëfe ko mais pour nga def li gën faw nga ànd ak ñi mën te ñi mën ñooy ñi yor xam-xam gi am na ñu fi nekkoon ñoo xam ne am nañu xam-xam nañu leen tàllal loxo jëm ci ñoom donc transhumance ngay encouragé. déedéet déedéet déedéet y a des y a des y a des fonctionnaires qui ne font pas de la ah, politique. man dama d'accord ne. fonctionnaire warul def politique. Mhm. Pape dafa am loo xam ne boo koy wax mooy li ngay gëm dafa am temps yee la nga daan wax mooy la nga gëm temps yii li gën moo fi nekk. FMI yàgguñu ñu wax ne baaxul banque mondiale yàgguñu ñu wax ne baaxul mais tey jii dafa am ñi doon wax ne baaxul ñoo leen di taggal seen maam. ñi doon wax ne baaxul tey jii bu ñu soxlaa xaalis ci ñooñu la ñu jëm parce que bañ koy wax am na loo xam ne maîtriser wuñ ko woon yow patron d'entreprise nga da ngay liggéey di liggéeyloo ay nit am na loo xam ne xam nga ko am na ñu nekkoon ci état am na loo xam ne am nañu expérience bi parce que ñu ngi woon ci biir état mais koo xam ne mosoo nekk ci périphérie fu ñuy jëli décision mais bu lu la neex wax ba ñu waxee waxu CFA man ma leen di wax ne gëw ma li ngeen di wax. mais man lu nekk dégg naa ko ci. d'accord mais Bougane tey jii may ma rek ma ma ma explique la yow en chef d'entreprise nga nga xool réew mu mel ni Ghana réewu Ghana seen inflation mu ngi ci 27 pour cent bu dee Nigéria dem na ñoom ba 34 pour cent boo dee réew mu mel ni Ghana nga xam ne 27 pour cent la ñu nekk ci seen inflation. yow bu fekkee ne da ngay liggéey ci réew mi nga def bénéfice boo defee bénéfice mais il faut nga def lu ëpp vingt sept pour cent tey Sénégal suñu inflation mu ngi loolu yombul Sénégal suñu inflation mu ngi ci ñaata trois point trois pour cent donc yow boo defee vingt pour cent de marge bénéficiaire nga am net bu vingt pour cent mais ça veut dire tout simplement trois yi day dugg fële donc yow di nga am 7 euh, point euh, savirullah 16 point 7 euh, pour cent peut-être si si le calcul est bon donc c'est juste exemple bu ma lay jox lu tax ñu mën bëgg ñu gëmloo ne tey jii ñun xaalis bi ñu yor baaxul na ñoo xam ne sax dañuy taxaw naan la wuy suñu ay garantie mais garanti bi ñuy wax mais Sénégal moomu ko. ok al Bougane ñooñu ngay wax ay. Mhm. juutikat. Mhm. mais liggéey bu am solo la ñu def ah. absolument. mille et quelques milliards. Mhm. la ñu dajale bu yàggul dara dégg nga directeur général des impôts. oui wax ko mais loolu xanaa di ko apprécier. mais mais tout à fait. ci recouvrement. mais oui. oui. d' accord na. loolu di nga ko di nga ko tàccu. mais non war nañu mën a dem au delà. ok xam nga lu tax ma gëm ne dañu war a dem au delà. Mhm. tey jii moo tax man ma nga war a d'accord ak man ci benn affaire. te loolu vision wi ñi ñi ko ji ñi jiite réew mi la aussi. non non non euh, ña fi nekkoon ña fi nekkoon recouvrer nañ lu ëpp loolu ñoom li ñu recouvrer nii dañoo dellu ginnaaw par rapport ak ña fi nekkoon li ñu recouvrer ñoom dañoo dellu ginnaaw par rapport ak ña fi nekkoon moo tax ma wax la ne la. boo déggee le premier ministre di wax ne way réew mi xamuñu fu ñu toll defuñu nangam nangam mais euh, le programme euh, prioritaire d'investissement man dama dem ci direction du budget dem ci seen site mais dama gis programme bi 2023 cinq gis naa sax beneen boo xam ne mille vingt 2024 la 2026 mais lépp luy financement lu ñu boucler ak bépp projet bu ñuy def ci Sénégal ak financement bi fi mu nekk mu ngi fi pare na mhm. waaw léegi ñoom ñu bëgg ñu gëmloo ne réew moomu dafa nërmeelu cin faqul bënnul dafa fa ne woon jógu fa bu fekkee ne réew mi doxul c'est parce que ñoom ñoo cuune wax ji nag neex na mais dama la wax sànq ne la. li nga gëm ak li gën. du benn. ok d'accord <laughs> alors Bougane man ci lenn rek laa la déggul. Mhm. man dégg naa la ci tirailleurs yi. Mhm. bi ci PM tiré nga tiire ci yooyu itam <laughs> cest à mais ak vraiment ak plume bu metti ah oui c'est-à-dire si tàng te soxor. oulala non c'est man liir naa ko mais c'est-à-dire da ngay da nga naan mais est-ce que kii Bougane mi amul lu mu jàppal vraiment Ousmane Sonko quoi ci ci ci lu personnel. ah non du tout du tout. non est-ce que li liir nga ko nee naa la texte bu metti nee naa la mais ce qui s'est passé ak tirailleurs yi. moom dafa jël tirailleurs yi wax ci mais ñoom ni tubaab yi def tirailleurs yi ñoom noonu la ñu def une partie de la jeunesse <coughs> mooy cag-cag yi mooy marchand ambulant yi mooy borom charrette yi mooy transporteurs yi ñooñu dañu tug taxaw jàppale leen xeexal leen ba ñoom ñu jot ci réew mi ñu wëlbatiku dal ci kaw ñooñu moo tax ma ne ko balaa nga ñuy wax waxu tirailleur bu ñu wax waxu tirailleur donte d'accord nañu ak yow mais jëlal say responsabilité ni France jëlee ay responsabilités amnistie bi tax quatre-vingt-six personnes ñu dee ngeen diil ko yow ak Macky Sall mais ñëw leen wax ñu lan moo nekk ci amnistie boobu dellu leen ci ginnaaw je ne suis pas le seul am na association bu jóg taxaw pour que amnistie boobu ñu jàdd ko fiy jële donc man inventé wu ma dara Pape li ngay wax ne dama am problème ak Ousmane Sonko wallahi la mu soxor problème mu soxor soxor nu ma koy soxor cest à sa problème mu problème mu mais loolu rek laa mën a wax quand même waaw ah, loolu de mais non dafa yéeme quoi loolu loolu de loolu de loolu de sañ nga ko est-ce que Ousmane Sonko